السين مهجمة والكاف والراء الراء والباء وهو الباء والراء السين مهجمة والكاف billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani irrahim wasala wasalama ala asrafi alanbiya sayidina maolana mohamadul makin wa ala alihi wa ashaabi guril mayamin wa man ihtada bi hadihi ila yawmi din raditu billahi rabban wa bilislami diinan wa bi sayidina muhammadin sala allahu taala alayhi wa sallam aataytani ya rabbi min ladunka dikran hakiman faralitu anka baaraktali ya rabbi fi hurufi wa gayriha wa jutta bilmaarufi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu nu santaatee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci xayri xalqihi sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam di njukkalaat seexuna cheikh ahmad bamba xaadim rasul di ñaanal cheikh mamadul muntaqa sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko noonu lañ koy ñaanale sëriñ cheikh jëmb faal waaye noonu lañ koy ñaanale sëriñ abbas mbàkke borom daarul du ñu deñ benn yoon ci di ñaanal bokki jullit yi ak bokki taalibe yi fu nu mën a nekk rek ci goxi àdduna bi waaye di leen ñaanal sunu borom subhaanahu wa taala defal leen màggalug jàmm mbokk yi ni ñu ko waxee woon ci sunu premier numéro ñu fa yéene daal sunu deuxième numéro ci dunduk Seexuna Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul xam ngeen ni lépp rek jëm ci mbégte mu tedd mu màgg mii muy mbégteem safar doon bis boo xamante ni mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar xam ngeen ñu fas yéene ànd ak yéen rek ci li nga xam ni mooy ànd ak yéen bégalante ci weer wu tedd wii ci bis bu tedd bi ci bis bu màgg gi di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mbokk yi fi ñu yaman xam ngeen ni waxan nañ leen taarixu sëriñ bi ba ca Mbàkke Kajoor waajuram wu tedd woowu wàccee liggéey mbokk xam ngeen ni sëriñ bi nag daal dese daara ji ba tey continuer liggéeyu Maam Mor Anta Sali di jàng ak a jàngale waaye xam ngeen ni niñ ko xamee ci benn yoor-yoor la ko yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dikkee nga xam ne yonent bi moo ko dikkal nee na nelawut ni ko rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi dars loolu ci làmmiñu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam la jubee wax ko ne ko yaral sa gaay ci himma te bu leen yar ci njàngum kese kon foofa daal nañ gis ni sëriñ bi waxan naa la ni la moom la niti àdduna yi gën a na bëgg moom la wan ginnaaw mooy nekk ak buurub àddina ba mu ñaari xasidaam yi siw yooyu kon tàmbali naa wuuteeg bindeef yi waaye tàmbale gi mu tàmbalee wuuteeg bindeef yi am na résultat ndax yonent bi dikkal na ko ni ko bu leen am ci njàngum kese Euh, te fekk na lu jiitu loolu wax na ni sëñ Tuubaa daan na jàngal kenn ci doomi soxna yi ndax booba jàng moo xew ba yàgg mu ne ah lii de baax na lool doomi soxna joo xam ni daa toll ci jàng nga jël alluwa teg ci peggam ci luppam di ko jàngal ba mu jàng alxuraan ba wattu ko baax na lool waaye gis naa loo xamante ni loola moo ko gën fuuf te loolu xam naa ne njàngum kese du ko maye booba sax yonent bi saa salaam waxugu ko lii daan ni loola mooy lan loola mooy nga fexe ba sunu borom bu dee bind ci lawhul mahfuus muy àlluwaam ji mu bindee moom yàlla ngay dégg xalimaam nga te lool li koy maye du njàngum kese bi ko yonent bi dikkalee lii ci la xame ne yi doonatul njàngum kese faw yar nit ñi maanaam tarbiye leen yar leen ci yitte ak aal te mooy ak taalibe te mooy ak murit mbokk yi xam ngeen ni ñenn ña dañoo daal di wax sëñ Tuubaa ko ñun njàng moo nu andi woon suñ mënatul a jàng dañuy buti fu ñu jànge ji daal di yeeweeku mu des muritam yu dëggal yooyee sëriñ daam Abdourahman Lo wax nañ ni jamono booba fekk ko fi ma nga jàpp ma nga boori Mbakol waaye dafa daal di ñibbisi sëriñ ma sàmba Diop saa mbokk na ci ña ko topp sëriñ Daaru Assane Ndiaye ak mag ñu dëggal ñooñu nga xam ni mën naa ne ñoo sos yoonu murit waaye xam ngeen ni foofee ca Mbàkke Kajoor ku ko tudd rek daal di tudd suñu jàmbaar ji nag baabul muridiina rijaalullaahi maam Cheikh Ibrahima Fall ca la daal di joxe ci jamono bu néew mu daal di ki jox sëñ Bàmba boppam sëriñ bi nag ginnaaw bu loolu amee nag mu gis ni ceddo yi nag ak tubaab yi daal di tàmbali nag indi ruu xale yi ndax booba tàmbali nañ di wax ni moom mii kat mbooloo lay wut xatal ko mu daal di jóge ak mbooloo mu néew moom mu ànd ak ñoom xam ngeen ne del si mbàkke bawal diir bu gàtt la fa am xam ngeen ne mbàkke bawal histoire bu siiw la sëñ tubaa tàmbali woon na fa am ay njaboot waaye lu mu am rek dafay mel ni dafay delluwaat ci boroomam waaye maam Cheikh Ibrahima fa làmp moo ko gëstul suuf daane ko gis naa suuf soo xam ne suuf su nangu la te buñ fa demee loo am dana toog muy suufu Daaru Salaam daal di koy wax seexul xadim seexul xadim daal di sanc daaru salaam bi mu sancee daaru salaam diir bu gàtt la fa def rafaatale ko rakkam jooju nga xam ni mooy maam Cheikh Anta boroom dërëm ak ngërëm waaye ànd ak lenn ci murit yi daal di sanc dëkk bu tuut bu tedd bii nga xamante ni nee na mboolem sama dëkk yi mooma ci gënal mooy tuubaan maxruusa bi mu sancee tuubaa nag nekk fa ak murit yi di leen yar ci yitteeg àll diggante boobu mbokk yi xam ngeen ni diggante la bu yéeme boo xam ni mat nay fàttaliwaat di ko delloosi ndax li tax wax naa ni la murit yi mu àndaloon kon Mbàkke Kajoor la ànd ñoom ñëw Mbàkke sanc Daaru Salaam jóge fa ci penku Daaru Salaam muy Touba mu sanc Touba waaye ci Touba ci la wàccee mbooleem mag ñi ànd ak sëñ Touba na ngeen xam ne Touba la leen wàcce xam nga kon diggante boo mën nga ne diggante bu gàtt la waaye mu leen di yar ci himma mu leen di yar ci yitte mu leen di yar ci ak taalibe foofu fii ci Touba wax na ni sëñ Touba daan na dajale mag ni di leen wax ni saxaaba yi ñooy seen baay ci diine na ngeen fexe ba rey saxaaba yi bi mu nekkee Touba diir bu gàtt boobu nag tubaab yi ak ceddo ya tàmbali di gën a jaxase digganteem ak ak ak ak gouvernement bi ci lañ tàmbalee nag di wax ni kon moom daaraam yu bari yi muy sanc ak nit ñu bari ñii muy muy muy dajale su yàggee lim xalaat mooy dina xeex ak nun waaye taxul sëñ Touba amagul ndigal ci dara nekk Touba ba mu fa nekkee ba yàgg koor ñëw mu daal di li'tikaaf ci jàkkay Daaru Xuddoos mooy jàkk ji nekk ci péncum Daaru Xuddoos sëñ Mbàkke Madina yàlla yàlla yokk ay leeram yeesalaatal ko jàkk jooju ba mu fa defee li'tikaaf nag euh, kon dañuy gis ni baneen sabab bi daal dinay tàmbalee juddu ndax bi mu defee li'tikaaf ci jàkkay Daaru Xuddoos la gis yonent bi sallallahu taala wa sallam mu ànd ak mu ne yonent bi man de ci ñii laa bëgg bokk yonent bi ni ko ñii de bokk ci moom na nga xam ni wees na ndax li ciy tax a bokk képp ku fi mas a jaar fii nga jaar toll fii nga toll bëggee ko ni nga ko bëggee suñ ko yoxee yan bi maanaam bu ko bu ko yanoo du wees sax ay wóomam waxuma laa nag muy egsi ci ndiggam waxuma laa mu di ko yanu ci boppam te dana des ci moom ba mu day mujj yàqule ca te yow day Ahmadou Bamba bëgg naa la bëgg goo xam ne bu ma sañan doo dugg ci dara di ci yàqule te na nga xam ne ñetti weer moo tee nga doon xut bu samaan bés ni ki tey mën naa laa tëbal nga doon xut bu samaan Sëriñ Tubaa di wax ak yonent bi di wax ak moom ba yàgg mu ne ko man day xut bu samaan moom sama bët weesu na ko sama bët jëll na ko li ma bëgg daal tey mooy bokk ci ahlu badrin yonent bi wax ak moom ni ko nattu yi dina diis lool de li gën a yéeme mooy wopputu sax doo ko def doo wax um doo wax mukk liñ ma teg mënuma ko te yàlla dalay boole sa noonu jamono sëriñ tubaa da koo tontu ni ko liñ may teg de xawma nu mu toll waaye roogeet sàkkuma ko bay xam lu mu àttan ak lu mu dul àttan waaye lu sama ru àttan sama jom dékku na ko te sama pëstéef dana ko yóbbu kon danga daal di gis ni kon ñaari sabab yi daal dinay validé wu mooy kon xondooñ xol bi nga xam ne faw mi ngi mu ngi bëbbu ci bëgg ànd ak saxaaba yi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ànd ak ahlu badrin beneen bi ci mooy tubaab yi tàmbali nañ di ko ruuxale ba nga xam ne dañ ni kon moom day wut ngóor euh, bi nga xamee ne loolu am na yonent bi dafa wax sëñ tubaa ni ko tubaa moom aaraleef na la ko kon faaw da ngay génn tuubaa dem faneen sëriñ tubaa nee na suul xeqda suul hijja muharram laa génn tubaa dem mbakk bayri jolof di fa xaari dogal ba xam ngeen ni mbokk yi diggante boobu diggante bu siiw la bokk na ci natt yi nga xam ne suñu borom subhaanahu wa teg na ko siñ tubaa da koo wax ni ko sa sa ndijaay ji nanga xam ni juboo nag yàlla ba bu ñaanee da ñu bàyyi la dañ koy bàyyi dañ lay woyfal nattu yi nga xam ne ndijaay ndijaay boppam ci nattu bi la bokk mu daal di wàcc liggéey mu génn dem dem dem Mbàkke Bari Jolof dafa xaari dogal ba foofu dangay gis ni Sëñ tubaa dafa waxal ni maay na ma dalog lislaam gi sëf leen ma jóor leen ma dinaa ko jaamu nga xam ne ci saasa dafa daal di wëlbatiku daal di wax ni yan bi nu yanan xut bi ak abdaal yi bàmbaa ko fab raw gaa yi dëngañ diw yi te tëwatul balaay suratul awaali la am ci laaya muy lu kawe loo xamante ni kon danga gis ni benn sabab bàngoog bi ci des mooy tubaab yi ruuxale nañ ko looloo waral mu jàpp rakkam ju tedd ju muy maam Cerno Birahim yónni ko fële nga xam ne mooy ndar kon mbokk yi li may def mooy dama leen di daal di dig daje ci beneen émission insha allahu taala ñu ànd ak yéen ci mbégte mii nga xam ne mooy weeru safar kon ñu yemale fii suñu waxtaan bu nu ñëwaatee ànd ak yéen ci li tàmbalee Mbàkke Bari Jolof Kokki Ndar Louga ba agsi ci nga xam ne mooy 5 septembre incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu